asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa cent jeudi deux janvier 2020 ñu ñëw ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la record Les Échos ba ci Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom daa mel ni olof Njaay waxoon rek ne njeexaat foofu rek doom delloo fa sab loxo bu fekkente ne Ama Baldé foofa itam mosu faa waaye mag ja di Balla Gaye numéro 2 moom jeexe woon na fa ba for fab doom muy INSEPS ba ca Paris ñu fay préparer ay athlètes wala dina fa tàggate mu mel ni ki nag yëglikaay bi xëy na daal xamal ñu ne day combat boobu mu war a bëri le 26 juillet moom Ama Baldé daal fenn doyu ko ci fudul INSEPS ba ca Paris ba nga xam ne Balla Gaye 2 fa la préparé woon diggante ma ki nga xam ne moo di Modou Lo te am ca ndam mu mel ni kon ba amaa daal foofa la teg ay bëtam fas fa yéenee dem préparé boppam mu mel ni ki nag yëglikaay bi ne ki nga xam ne nii day moo di Mouhamed Ali Ndiaye ak Moussa Fall Ama Baldé jël na leen ñuy ñaari experts yoo xam ne daal ci lit gërë ko moom xereñ nañ ci torop ak ci wàllum box moo tax daal yëglikaay bi jàpp ne ne daal trésor 90 millions ba daal fi mu nekk nii day moom la ñu teg ngir guerre ba li leer ba leer daal yëglikaay bi tey xëy na ñëw wax ci lu mel noonu mu mel ni ki nag combat royal boobu fi nekk nii day ak leeram moom daa mel ni mu ngay gën a jegeñ maanaam daal am nga moo daa mel ni la gën a jegeñ ñu bëre ko léegi kaay bi tamit ñëw na wax ñu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag fi mu nekk nii daal li leer ba leer day boo bëggee dégg-dëgg daal combat ba moom am nga yaakaar nañ mu am mu mel ni kii moo Modou Lo nag moom dellu ci réew mi nga xam ne moom la ñu ne muy Sénégal ginnaaw ay fan yoo xam ne defoon na ko ci États-Unis yëglikaay bi xëy ñëw tey dina ko wax waaye leneen loo xam ne tamit ci combat boobu gis nañ ko ci Les ko ñu xëy ñëw ci ka nga xam ne nag moom moo di Wili di doomu Luc Nicolaï mu mel ni kii nag daal moom am na licence am kon mu mel ni combat ba moom desa presque daal yëglikaay bi dina daal sauvé nañ ko de am moom boo sàgganee dana ko def waaye la narta am nag mooy face à face ba ñu jàppoon mardi 4 février ca TFM loola moom daa mel ni fi mu nekki nii moom ku ko doon xaar boo yeboo xaddi ndax nag Thierno Ka ma nga xam ne nii day kilifa la ci wàllum làmb ji wax na wala ci wàllum CNC ba ne na leer ba leer moom boobu face fas face mënta am xanaa kayil balaa mën a am moom ñu signé avenant yi ba pare ca CNC ba lépp leer muy doog a am waaye bu loolu moom nee na loolu moom bu ko kenn xaar mel ni ki nag CNC ba booba daal li leer ba leer daal bu bëggee dégg-dëgg daal jàppal ñi nga xam ne nag ñoo di promoteurs yi ginnaaw bi ay ndogal génnee fan yi daal daa mel ni seen daje CNC moom nar naa am jàk si ñëw ni di wax ci lu mel ni ki yoon wala koo bopp ka nga xam ne mooy seen président xëy nañ wañ na ko ci aw photo muy Pape Abdou Fall mook docteur Alioune Sarr mu mel ni ki altine jii nu jëm daal na nar nañu daje ak promoteur ya waxtaan ngir wut aw yoon woo xam ne ca la ñuy jaar ngir déggoo mën a am waaye daa mel ni nag ba tey bu ñu demee ci record ci xalima ak Abou Ndour wala waxtaan wu mu séq Yaxya Jóob Yékini daal Yékini moom la mu xam ne daal nee na nga xam ne ñoo fi ne jiite làmb ji wala muy CNC bii daal li leer ba leer daa soxla ay bopp yu bees teq suufale ko andi fi yeneen nit wala boog yeneen doxalin loolu mooy wax yax yi jub ci yëglikaay bi di record mu seq waxtaan wa ak Abu Ndour waaye ba tey bu ñu demee ci record yam fa wala ñu continuer fa ci waxtaanu Abu Ndour wala gëstoom mu mel ni ki nag ka nga xam ne daal mooy Balla Diouf coow la jógoon ca Fass mu nga doon def ay médiation ngir fey ko ngir Papa des ci ba waaye daa mel ni daal Abu Ndour ñëwal nañu ci la tax loola sottiwul mu mel ni ki Gris Bordeaux nag Balla na su ko wooyee moom du ko jot daal maanaam mënut a fexe fexe ba jot ko ngir waxtaan ak moom ngir nag mbir ma ñu jéem a seet na ñuy def ba affaire ya am waaye daal daa mel ni kon mbir moom fi mu nekk nii daal daa bëgg a doxe fa tàbbi géej wala boobu lépp doxe fa tàbbi géej ndax papa moom loo ci mënti dégg mu ngay sañc ab écréem te écréem booba mu sañc daa mel ni daal ca la fas yéene ne ak bëri ji ak setta waaye yëglikaay bi dot ba tey ñëw na ci li nga xam ne nii daal moom moo di ah ki nga xam ne nii moom moo di Siteu mu mel ni ki daal moom am na licence am record a xëy tey ñëw di ñu ko wax waaye tamit ñëw na ci ki nga xam ne nii moo di Mbayang Loum ak honoré boo xam ne nar nañ ko koo defal fa nga xam ne nii mooy ci Adrien Senghor Dimanche ka koy def nag danañ ju kenn kurul borom Jilaas production di duudu ñaan ma nga xam ne ku ko xam xam ko ca jax record moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne dañuy dellu ci sunu làmb fekk ko fa muy ki nga xam ne nii mooy Chris Cross dina jaayu ki nga xam ne moo di anti nee na jarbaatam bii day li leer ba leer moo moom mook Fallou Ndiaye dara liggéey du maanaam daal dara booleetu leen ci wàllum contrat Chris Cross nag moo xëy ñëw di wax loolu keneen koo xam ne ni moom am na ay contrat wala mu bëgg di signé ay contrat moom mooy ki ngeen fi xamut mu nekkoon ci wàllum làmb ji di ci yëngutu wala boog ci coto sponsoring muy Habib Habib daal fi mu nekk nii daal ñëw na ak licence bu bees wala boog ak combat bu bees dox ci diggante ki nga xam ne nii moo di daam seen ak ka nga xam ne nii moo di ndandi faal Habib daal loolu la xëy ñëw indil ko amateuru lamb yi mu mel ni kii nag combat ba moom mois de juin la ko fas yéenee tëgg keneen koo xam ne nii moom combat ba muy dox mu nga ca ba tey wala tayala gu ca mu ngi cay wax muy jamay jamaïcain daal li leer ba leer daal dana mook fik mook ñi nga xam ne nii ñoo booy Boy Niang fixé nañu prix boo xam ne daal daa mel ni kon déggoo am na ca loolu yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw tey dina ko wax bu nu demee fa nga xam ne nag moo di ca Leewtoo TV moom li leer ba leer daal jàppal Moussa Diop ñu gën koo xam ci Los Production di bras ci Bombardier promoteur bu bees la tëgg làmb xam ne mooy Mbour le 9 mars moom nag mu ngay wax ca làmbam ja na mu koy organiser ak la ko ci tax a dugg waaye tamit mu ngay leeral digganteem ak Yaxya Jóob ni ma nga xam ne nii day nee na nitam la ndax da koo yàgg sob ndax doxalinam waaye digganteem ak xaritu benn bakkanam bi nga xam ne moo di la B52 bu Mbour di bombardier mu mel ne ki Moussa Los daal wax na fa lu yaatoo yaatu ci lu jëm ci moom waaye keneen koo xam ne nii moom ay datama ngi nii yëglikaay bi xëy ñëw wax ko la ko commencé le 16 février jàpp le 4 avril ba le 5 ay date la yoo xam ne daal date yu rëy rëy la ngir jax yëglikaay bee xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ni ki noonu mu mel ni ki daal li leer ba leer jàpp ko yàgg maar làmb ji sàjj na waaye comme wili am na licence ah xanaa kon ku amul yaay la olof wax da ngay nàmp maam ku amul la nga bëgg am la fa sës waaye loo ci mën a dégg wili yàgg sa licence du tere may ñaan la ma doon ñaan yàlla na yàlla def lig ni ko lay organise làmb ji te mu fekk ko ci biti loolu laa doon ñaan te moom lay continuer di ko ñaan ndax yàllaa ko wax ñaan leen ma ma may ma may leen la wax yàgg maar ngeen sant ma ma dolli leen. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw ah, maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la delloo ziar di nuyu ñu suivre ci Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom. kon tey si ay verre nga génn. waaw tey de Aïda ma génne fii Aïda Diouf secrétaire Thialis Faye daal bi suñu Babacar si bi Aïda hmm. moo ma defal lii de série Côte su Jabong ma ca Paris loolu dama si débat ni ñëw si <laughs> ni ñëw si surlam surlam moom dafa xëy ne amaa joxe information ne Ama Baldé euh, mi ngi INSEPS de Paris foofu magam jaaroon muy Balla Gaye ba daan ki nga xam ne mooy Modou moom tamit xëy na tànk yooyu la bëgg jaar moo tax mu dem INSEPS de Paris foofu la nee nañ daal foofu lay entraîné ki nga xam ne mooy euh, Mamadou Ali Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Moussa Fall dañu yoroon tamit euh, Balla Gaye ñoom noo ko yor foofu noonu ak ak expert de directeur de ay expert de de boxe tamit Babacar waaw mu mel ni kon daal ama la olof yi noonu jeexaat foofu rek doom delloo fa sab loxo rek parce que tamit su ma ko waxee mooy xëy na jeexiwu kon waaye magam moo jeexi woon xëy na moo ñëw wax ko la ne ca INSEPS ba tax mu nar faa dem préparer ji Modou Lo waaw loolu nag mooy làmb tey sportif bi wala athlète bi bu fekkee da nga jël avance am komba yaakaar naa fi nga xalaat ne soo fa demee di nga ci génn wala dinga am ndam foofu rek nga war a yaakaar maanaam foofu rek ngay dem moom yaakaar na ne xëy na bu demee INSEPS ak ñooñu ñu wax noonu ay Ali ak ay Moussa Fall ak ay expert de ak seen xam-xam ak yooyu moom buñ ko liggéey looyee mu nangu lañ koy teg xëy na day yaakaar ne bu ci jógee dina ci mën a am ndam loolu nag mooy sport kon ñoom ñaar daal fi mu nekk ni loolu woon ne combat bi ku ci ne ñor na leen ñor na Ama ñor na muudu kon nag dañuy ñaan yàlla rek yàlla bàyyi ñu fi ñu fekk ko ak jàmm le 26 juillet ñu bëri ko que le meilleur waaye yàlla na fekk buy am promoteur bi ne ci biti muy Luc Nicolaï Babacar si combat boobu la ñuy des parce que ki nga xam ne ñi nga xam ne mooy sunu lamb ak li nga xam ne mooy record ñoom ñëpp ñëw nañu si information maanaam Wili muy doomu Luc Nicolaï ne ñu renouveler na euh, wut na licence démb si CNG maanaam daal léegi te olof na tamit doon sa doon sa baay doon sa baay ko gën waaw kon moom yaakaar naa ne tey nag euh, ku amul la nga bëgg am la fa sës ndax ñun comme li ñu doon wax rek wala li ma daan sax di wax moom laay continuer wax rek bu ñu sañoon lig mi ko tëgg moo koy topp ba mu jeex waaye nag jaamu pexem yàlla ki dogalam Wally nag wax dëgg yàlla xale la waaye nag yàgg na ci côté baayam te baayam itam bu ko wóoloo ak staffu baayam ba jël loolu teg ko ci loxom yaakaar naa ne itam dañ koy ñaanal yàlla mu dugg ci bisimilah rahmaani rahim def lu raw la lig daan def loolu tamit lañ koy ñaanal parce que tamit àddina moo tëddi noonu diw nangam kenn du ko wax non non non nit ki da ngay osé ngir def dara xale la ñii naan dina ko attan du ko attan mais yàlla na ko ko yàlla oyofalal ba mu mën ko gérer licence boobu mu am tamit yal na ko yàlla def tey mu nekk loo xam ne nii dina def ci làmb lu raw li papaam def te yàlla musal ko ci cat ak ay ndog parce que tamit àddina yaa ma gën a xam dafa doy waar daal dafa doy waar waaw dafa am loo xam ne nii dafa metti ci daaru duniyaa mooy dafa am ñoo xam ne dañu mel ni Babacar du ñu dem te du ñu bàyyi kuy dem waaw loolu dafa doy waar yal na yàlla musal bépp jaam ci ay ndog ak i taamala ak cat ak yu mel ni ki noonu Amin Babacar journal bi tamit xëy na boog lu wax ni que combat bi maanaam mi si loxo wi li xëy na loo tax ñu ne Modou yibbisi na jóge na États-Unis ginnaaw mu defee 21 jours de préparation Babacar. waaw Modou waaw bu ñibbisee waa loolu c'est waaw bu fekkente ne daal ñibbisi am na moom ah xëy na kon moom itam daa bëgg a ñëw nag dugg ci liggéey bi en 100 pour cent parce que Modou itam ku ko xam rek xam ne moom du fay làmb waaw moom moom boo ko gisee ba mu débuté carrière am ba nii mu to ak fi mu nekk nii tey yaakaar naa ne doo gis fuñ fuñ la ne Modou Lo foye na combat bëri nag défaite da caa bokk match nul bokk ca victoire bokku ca kon yaakaar naa ne kon fi mu nekk nii daal heure ba moo sonné pour ñoom ñaar te la ma si ñoom lay waxaat rek ñaari jàmbaar ñooy bëri Ama Baldé mbër mu dogu la mbër mu gëm boppam mbër mu am jom la si lu muy def par rapport ak tey fi mu ñëw nii ci làmb ndax boo xoolee fi mujje nga xam ne vraiment nit ku dogu la Modou nag moom yaakaar naa ne Euh, tey booy natt mbër mu gudd ak mu rëy doo ko natt ci moom waaye yaakaar naa ne nekk na mbër mu sonal ñi nga xam ne nii ñooy mbër yi ko ëpp wala ñi ko sut ci làmb te loolu joma koy may ak bëgg li ngay def journal sunu aussi nit ñi xamal ne ginnaaw bu CNG jëleen dogal ne face à face dootu amati tant que promoteur yi demoon CNG régulariser combat yooyu bu jox leen avenant ñoom daal fas yéene nañu rencontré ki nga xam ne Alioune Sarr ak équipe am lundi bii di ñëw allah Babacar waaw mooy la ma waxoon rek waxtaan rek du mën a ñàkk parce que am na loo xam ne soo ko jëlee wala nga nar koo def comme décision te am na ñoo ko seqal te ñooñu itam mënu su da bàyyi leen ah kon yaakaar naa waxtaan du ci mën a ñàkk kon daal waxtaan woowu ñu war a def lundi yàlla nañ ko def ci jàmm te itam ñu ca génnee yàlla na nekk njariñ li nga xam ne nii déggoo lay indi ci diggante ñi yilif ak ñi ñu yilife pour que làmb ju mën a avancer jëm si kanam ni ngi waxal tamit Habib ñu gën ko xam si Habib euh, l'écran ni moom léegi promoteur nee ñu taxawal na premier combat muy Nandi Fall ak Dame Sène pour le 21 juin baba mooy li may wax rek dañ ko naan ahlan wa sahlan Habib moom defe ne ci làmb te xalaa tëgg làmb ko ci desoon waaye côté bu ne jàppee na ko ci làmb ci sponsoring ak lu mel ni ki noonu kon tey bu ñu xëyee Habib ñu nekk taxawal na combat Nandi Fall ak ki nga xam ne nii moom moo di euh, Dame Sène bu école de yaakaar naa duñ wax lu dul rek pour mois de juin yàlla na ci génn ak jàmm daal te itam lim ciy xaar yàlla na ko ci fekk. Babacar nag suñu jógee sunu laam nañ dem fi nga xam ne mooy Roko Roko nag dafa xëy dalal ki nga xam des arènes la muy Yaxya Diop Yékini Yékini nag wax na nag li nga xam ne mooy CNG na équipe euh, day baax ñi peut-être di innover yeneen yeneen tête aussi wax na tamit si li nga xam ne mooy Forza nee na Forza problème am mooy face mooy obstacle am ñoom tamit si Reug Reug ne Reug Reug moom vrai champion la Babacar. waaw waaw yaxee daal maanaam kàddoom kàddu bu valable la si làmb parce que te wane na lool si làmb waaw kantaan nag bopp yu bees yi ah loolu a doon suy ba def yenn at yi war na caa mën a indi li mu wax defe naa mooy la Forza nag nga ne lu mu ci wax moom Kanta. Forza la ne. ah loolu moom dina naqaree lijjanti de kon. waaw yow fi nga nekk ne foofu nga war a nekkee champion ñu la fay ngémbe nga fay bëre mu nekk sa obstacle kon xanaa kay xanaa kon ginn faa say des te itam loola moom defe naa ne ah waaw yaxee daal wax na ay waxam kon nag wax jaa ngi noonu tamit. sëb la daal li nga bëtt. la ko na nga ci biir. <laughs> waaye commencé wolof de nu jeexee nag ak euh, euh, euh, li nga xam ni moom la Balla Diouf doon bëggoon dox pour delluwaat ki nga xam ne mooy Papa si biir écurie Fass maanaam loolu daal mujjul antu Babacar. ah waa Balla de dama naan lu baax la bëggoon ndax itam wax dëgg yàlla ay moom danay am waaye ay itam bu amee day laaj jubale am xëy na moom loolu la si bëggoon même bu ko réussir tamit day am yu yéene maanaam day am yoolu bu yéene jë ndax yenee dafa am solo trop rawatina yéene ju baax réew mi nag dafa am lu mooy faral di dégg benn kilifa di ma ko wax maanaam ay jubalekat dafay xaw a manqué waaw moo tax chaque jour xuloo yi di bëri mais jubalekat yi parce que li tax mooy xuloo day am kenn ku ne jàpp ci ndiw naan ko yaa yaa ne ci dëgg yaa ne naan moom lañ tuddee médiateur waaw man moo tax ma ne jubalekat yaa ngi dégg médiateur sax tubaab bee ko wax waaye olof moom jubalekat la wax waaye Balla daal kon dañ ko naan mention spéciale la mu bëggoon même bu ko réussirul tamit mais l'essentiel que euh, def de maanaam daal taxawaay ba rafet na daal waaw. Babacar na si kàddu leen tàggoo.